Moussa Fall wax na léegi ne ñi ngi provoqué di provoqué waaw yéen ñëpp kay seede ngeen ne xanaa kay bu fekkoon dañuy topp ak tooñ rek waaye yéen kay xam ngeen ne avant arbitre bi di soufflé yéen ñii ànd ak yenn ci yéen ñu dóor xamu ñu dóor sama oto bopp ah mais bu leen leen tont xam nga nit soo ko mënee bul ko man may lum naan la yaanam nañ leen ba ñuy point de presse nañ leen ba ñuy point de presse rek ñun daal li ñuy xaar ci yéen mooy ngeen continuer avant yi terrain bi guddi ak bëccëg ngeen wàcc nekk ci terrain bi loolu la ñuy xaar ci li ci des ay wax la ak ay détails la bu fekkee ne chaque jour ñu dugal dix nañ ko yóbbu vingt par jour na ngeen fexe yéen ba bu leen tooñ kenn rek. yéen daal luñ mën a déposé nekk leen ci li ngeen war a nekk dee leen wax li ngeen war a wax dee leen def li ngeen war a def te bu leen tooñ kenn rek kuy pelente ngelaw moom mën naa am poussière moo lay wuy si maa ngi leen di wax na góor góorgóorlu ci liggéey bi continuer liggéey bi mu continuer ca ngeen bañ a dugg ci benn détail liñ leen di woo mooy kaay yaane maag maane la nit ñi taluñu ko nekk leen ci liggéey bi ngeen sëgg continuer dox jëm élection loolu moom la ñuy xaar ci ñëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. gis nañ fi ay seen yoo xam ne c'est pas digne de c'est pas digne de Kaolack de Serigne Bassirou Mbacké ndaxte fii ku am xam-xam na nga ñëw taxaw nga teg ku man na nga ñëw teg nga wax ku am xalaat bu rafet ku am jëf bu rafet loolu lañ xamee woon Kaolack quoi waaye nag lu ñu bett parce que am na ñu ñu rax am na ñu ñu rax ñooñu nag dinañ leen ko ba au soir du 23 janvier ñu xam nu ñuy def ak ñoom bu kenn xuloo bu kenn xeex Modou wax na ko léegi borom càq du xeex ak borom baax ñun ñoo yore majorité bi on va l'exprimer et rien ne pourra nous empêcher de l'exprimer parce que bu njëkk bu selaw bu si njëkk mooy moom daf ne gouvernance la ñuy jiital gouvernance boobu nag ñu ne nan lay demee il faut que désormais ñu xam ne benn nit kese mënul diriger équipe la ñu am ak des experts autour moo tax nag ñuy taxaw naan bi baaxul profil bi baax na dañoo comprendre la dynamique a changé léegi soxlatuñ ay Messi ñii Neymar kese d'ailleurs su doon loolu PSG du leen dajale ñoom ñetti ñëpp si benn équipe pour mun a gagné la ñu wax équipe la ñu wax si seen bopp ñu ne nag dañuy boole ñëpp dañuy dajale xalaatu ñëpp loolu pour ñu arriver si si quartier yi koy commencé avec les comités consultatifs de quartier yi nga xam ne foofu mooy nekk source muy alimenter décision yooyu yëpp foofu lañ koy jëlee parce que li baax si Kaolack du bi kese moo ko